ñu dëgmal 18 safar nga xam ni baay faal yeeg yaay faal yi ñëppay laxasaayu wutali Touba li ni mel ñu dem fële fa jàkkaarloog Masaalikul Jinaan xool ana fan la njëg li ci laxasaay yi toll. yi am na 10 yi 12 000 yi 5 francs. seen 3000 lay gën a ngelaw. dàll kawas yi nii. yesaan yi 1500 lañ koy jaay en gros moom koy détaillé fii nii client yi waaw am na yii ndombo baat yi yii 2000 lañ koy jaayee. Ah, am na mbaxana euh, yi ñuy wax mbaxana sëñ Baara am na mbaxana yi itam ba tey mbaxana Baara am na njëlli sëñ Saliou yi. jaaykat yi di xam le ni. seen mbir mu ngi dox jamono ji sant yàlla ñuy sant yàlla waaw saa yi moom client yaa ngi ñëw waajal màggal géeg yooyu saa yi moom wax ñu ngi ñëw. waaye bagages yi képp ku ci nekk te yaatal sa xol. loo ci munta am amut ndax liggéey yàlla la alhamdulilah alhamdulilah clients yi ñi ngi ñëw maanaam euh, wax dëgg yàlla ñi ngi ñëw ndax ñee ngi ñëw di jënd ñee ngi ñëw di jël di jaayaat wax dëgg yàlla ñi ngi sant yàlla te ñu ngi ciy yëg suñu bopp bu baax a baax Baye Fall bii ñu taseel di ñu xamaleek njëriñu laxasaay bu ci nekk moo xam nombre la wala asmaaw ba ci der bi nga xamante ni moom la ñuy takk ci ndigg boo gisee nombal bi day wane ni suñu maam Cheikh Fall ñu ngi ñu ngi ci def asmaaw tax li gàllaaj la boo gisee laxasaay kaala gi tamit kaala gi tekkiwul dara lu dul ngir liggéeyal sëñ bi rek. fii mu nekk ne dañ koo lonkoon nii mais bu laxasu tey moom la ñuy jël di laxasaayu di teeñu di ko teg ci bopp yi di yenu suñuy booli waa der bi nag ñëpp xam nañ ne der lu muy def. moom moom la ñuy takk ci ci suñuy dëgg yi takk laxasaay bu bu dëgër këj. wax wàccaayu màggal wax accessoire yi muy àndal bu ci mel ni ay maxtum asmao nomba yi waaye itam li nga xamante ni moom moo di yëre yi ñuy faral di sol xéwale na bu ñu sukkandikoo ci jaaykat yi askan wi ñu ngi koy jënd.